ci doxinu yoon wi tabaarakallaahu sëriñ bi fàggul nañu lépp bàyyi woon nanu fi njabootu boppam gi mu nekkal ko ci na mu ko bëggee di ko sàmmal euh, loolu lépp nag sëriñ bi moom xel day mën a root kenn kàttanam rek xam ca lam ca xam jéem ko dund itam ca nam ko namme ci nun damay wax ne fii yoon wi toll bëgg sëriñ bi ak doyloo kii rek ak doyloo ko rek moo ko fi moo ko fi indi yoon wi sori na lool fa tabaarakallaa yaatu na waaye day ondiwul ëbboo ko fa gannaaw pàggute fu sëriñ bi eh, lu dul bëgg sëriñ bi ak doyloo ko waaye nag xamuñu ko dunduñu ko eh, sëriñ bi eh, nañ ko mën a xame di ko jéem kem kàttan il faut nga yàlla foofu nag moo taxoon may junju dama war a wax rekk waaye wax ji lu mat a tey la ginnaaw sëriñ bi ma ne su ko xam ci lu sóobu yoon yàlla sóobu yoon yàlla nag moo koy tënk ci ñaari baat rek ñaari anam rek sóobu yoonu yàlla il faut que bi mu futti mbubbum addunaam utti mbubbum adduna mooy lan il nga dëddu adduna dëddu adduna li mu lay andil daray adduna foofu rek laa ci yem nag kon nu góorgóorlu bu baax nu góorgóorlu bu baax gannaaw ba nu santee ba noppi lu sax dàkk ci góorgóorlu di gën di xam li nu fi indi mu jaamu yàlla rek jaamu rekk yàlla rek moo nu fi indi leneen andi nu fi andi wunu fi kon nu góorgóorlu bu baax ci jumtuwaay yi nga xam ne moo nuy won ne ngi jéem suñu wartif mu jàmm yàlla jàmm yàlla nga ci jiitu wii ci ndigal di bàyyi tere te yàlla tax sa kem kàttan la si dolliku mooy jéem a xam lu yàlla bëgg ci noonu jéem a xam lu yàlla bañ ci noonu di jéem a nekk ca la yàlla bëgg suñu kem kàttan di jéem a daw suñu kem kàttan suñu xelu bëkkan la yàlla la yàlla bañ kon di def ndigal bàyyi tere def li yàlla bëgg daw daw li mu bañ loolu ala kulli xaalin mooy jumtuwaay jumtuwaayu jaamu yàlla te jaamu yàlla rek lu fi andi kon nu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax suñu kem kàttan am naa lu ma mën a wax xam naa ko itam waaye wax daa war bu jógee mën a am njariñ ndax wax joo xam ne ñaar rekk koy ñaar ñaar ñaar a koy teewe ñaar a koy teewlu ki xam ak ki xamul ki xam te nun ñépp ci am xam-xam day des wax joo xam ne nag ki xam bu ko déggee bu ko jàppee waxi nit ki xamul itam bu ko déggee wax yi sax la koy jàppe kon wax lu mat a tey la ndax la ca gën a am solo muy mu am njëriñ loolu xëy na moom gàllankoor ci ci wax waaye noonu ma ko ubbee rek ci sóobu yoonu yàlla bala ngaa xam sëriñ bi il faut nga sóobu yoonu yàlla waxuma nag dund ko te sóobu yoonu yàlla sóobu yoonu yàlla moom bunt bi il faut nga sum sum futti mbubb mi nga xam ne ñëpp moom la ñuy indaale il faut moomu loolu mooy lan in faut nga dëdd àdduna te daree àdduna dut la saf nga door a sóobu yoonu yàlla foofu nag foofu nag la la rawaate bi nekk ku gën a ku gën a sóobu ci yoonu yàlla muy gën a xam sëriñ bi ku gën a sóobu yoonu yàlla mu lay tane ci mën a dund sëriñ bi kon eh, mbir la mu mu rëy xam màggaayub sunu boroom màggaayu sunu boroom mu rëy rëy boo xam ne xamee suul fu mu yem loolu loolu moo tax sëriñ bi dox doxin dox doxin bi mu dox diggam ak boromam def ni ko li ko boromam digal ci ci yonent bi mu def ko defin ba u kawe may sul ne du xëy na eh, doxi na ko doxin woo xam ne ko ca àgg doo ko mën a weesu muy jaamu boroom ak topp yonent bi mel ni mbindeef mënut a weesu li ci sëriñ bi ni ni ko sëriñ bi doxe mel ni du malaayka du yonent bu leen yoxu bu leen yoxu bu leen yoxu mel ni mbindeef mënut weesu dox ni sëriñ bi doxe jëm ci boroomam wëlbati ko dox dox dox ni mu doxee digg moom digg moom yonent bi mel ni mbindeef doxin la woo xam mel ni mbindeef mënu ko weesu foofu laa ko rek ah, sëng ba ngeen ci mbindeef mu jëw liñu sëriñ bi ci xaddis ba dafa wax ne amul kenn koo xam ne jëfam sa jëfam la yu bàyyi loolu loolu yi suñu borom la xam ba mu xam moo tax mu wax ko amul kenn koo xam ne sa jëfam la yu bàyyi na mënuñu ko ñàkk laaj ñu ne ko ah ba ci yow mii mu ne ba ci man loolu sa borom nas ba ci mbarum yërmandeem kooku nag moo wax loolu waaye sëriñ bi moom daa nekk ci gannaaw yonent bi ñaanal mbindéef yépp irham jami jami al wara la wax kon nag noonu la demee ginnaaw sang bi gën ñépp mu wax loolu diggam ak boroomam diggam ak diggam ak diggam ak diggante jaam ak boroomam ginnaaw lu moo ko wax mu ne su ko ñàkk laaj ba xam kon fu mu jëm ak na ni def bañ ko ko laajee dafa wax ne sëddi doo xaaribu loolu borom xam-xam yi moom ñoo ko mën a firi loolu la yonent bi wax man nag ni ma ko li ma ci déggee moo de danuy dañuy bañ a bàyyiliku te bañ a sàggal tax dàkk nag ci jaamu gu ñu fendi di ci ndigal di bàyyi tere suñu kem kàttan di bëgg lu baax di bañ lu bon suñu kem kàttan lépp yàlla tax ñu ko def wute gu ngërëmam rek loolu noonu loolu loolu loolu jaam ñi loolu lañ mën a am nañu def seen kem kàttan ba mu waxee ni sa didu wa xaribu borom xam-xam yi mën nañu ko firi ñoom loolu man na ma ko déggee mooy bu nu bàyyiliku bu nu sàggan waaye da caa teg ne kullun mu yassarun lima kutiba la waaw loolu la ca teg waaw ba jaaxle amee da leen dénk wax leen nañu war a def ñu war caa yem kon lu góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi jaamu yàlla rek nu fi indi sunu kem kàttan ñëwee ci ndigal di bàyyi tere di bëgg lu baax di bañ lu bon di jëf lu baax sax ca dàkk daay man di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax sax ca dàkk te yàlla tax loolu rek la mooy pexe mi kon alhamdulilahi rabbil alamina sant rek lañ war a def ginnaaw foofu la mbir mi nekk suñu borom boole noog sëriñ bi sëriñ bi xam ni mu xamee boromam ak ni mu wéyee ci ndigal ndigalal boroom ci yonent bi ci diggante boobu mu toll bindeef yëpp xool leen ñépp na ci jàmm ko te xërëm yeeg yëfar yi ñu sàggan ñépp ñépp na fi ñépp na ci biir mu ne boroomam irhamul jamil wara mm-hmm. yërëmal bindeef yëpp loolu kàddu yi dama war a wax te am gàllankoor bu mënuma wax ndax boo sañoon boo waxee mu am njëriñ waaye dama war a wax fii ma toll fa mag ñi daa àgg na fa so romb naa sama juróom-ñett fi teel rawatina nag léegi loolu leen mën a jarañu léegi loolu leen mën a rawatina ñu tudd gi mu tudd tudd sëriñ bi te ma toog ca lool kon war na wax waaye nag boo sañ booy wax day wax day am njëriñ jërë jëf maa ngi jégalu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf tawfeex am ci sëriñ bi suñu boom defal na ko coobareem nan ñaan rek mu dina ko dollil muy gën a bëgg sëriñ bi di ko gën a jéem a xam di ko jéem a di ko gën a jéem a dund suñu képp kàttan buñ ko defee daan mucc teeg ëllëg daan texe teeg ëllëg daan defaru teeg ëllëg loolu rek gàllankoor yi ci àdduna ak fitna ci am ak ni mu deme loolu loolu dong nu ci mën a musal te mën na noo rafet njort bu baax am gi lu sa am sëriñ bi dana nu musal ci yëpp jërëjëf ñu ñëpp dalal ñu ñëpp dalal ñu ñëpp dalal tàllal leen tàllal leen tàllal leen sama amiin amiin